amuñu ndox yàlla xam na ne dañ amul ndox euh, tey jii boo xoolee tool bi ni mel salade bi ni mu mel wax dëgg yàlla lu na sax tey jii nii ñuy taxaw ñu naan tool yi leen deng nii la meloon loolu jommal nañu trop ña ñàkk ndox bi mooy da maanaam dañoo déconnecté définitivement sabotage la ndax dafa am benn contournement boo xamante ni contournement bi mu ngi mu fii nii euh, même pas sax euh, trois mètres fi ñu taxaw nii ak foofu noonu foofu lañ ko jaarale tuyau bi fa lañ ko jaarale tuyau trois cent bi nag mu ngi si ginnaaw tali bi léegi nag ñoom dañ ut dañu utal dañ ko utal ay tee yoo xamante ni fa la jàpp ñun ñi nga xamante ni ñooy nekk fii nii ñi nekk ci bureau yi ñun ñoo leen di liggéeyal li nga xamante ni moom la ñuy lekk ndax supame mënoo ko naan carotte mënoo ko naan ak yeneen ak yeneen mënoo ko naan da ngay wàcce nag boo wàccee de si sa biir bureau dem ba sa kër da fay fekk li ñuy bay moom ngay lekk kon nañu respecté baykat yi fi nga xamante ni war nañoo jooytu foofu dañ faa jooytu ci autorité yi mais yenn saa yi dañuy toog di seytaan suñ plan A tëral nañ ko nii mooy bi ñu def nii mooy ñu jooytu wax dëgg yàlla le commandant Wade moo ñëw fekk ñu fa ñu taxaw man parfaitement dama oo directeur euh, seen o ma wax ak moom xamal ko ne ko na ñëwal ñii nit ñii wax dëgg yàlla mënatuma leen téye béykat yi mënatuma leen moom mu xamal ma ne ma mënu mënu see ñëw tey mënu see ñëw ëllëg yàlla def commandant bi ci boppam bi mu ko yëgee moom ñëwal na boppam dox ñëw dox si tànki jàmm waxtaan ak ñun ñu dégg ko bu baax dëgg yàlla macha allah ñu àndaat ak moom ñu dem ba ci commissaire mu waxtaan ak ñun ñu dégg ko ñu wa mu wax ñu ñu ne d'accord comme que noonu la demee baax na mën leen mën nañ leen may feek nangami fan bu dak bu fajulee nag ñun am nañ suñ plan bee boo xamante ni dañ ko denc duñ ko wax kenn